Euh, sous-estimé euh, bëggu-bëggu ñi nga xamante ne ni moom mooy waa Touba suñ la doon laaj tey yan mooy doléance si nga xamante ni ñoom ñoo gën a prioritaire fii ci waa Touba ngir yow bu la yàlla defoon tey nga nekk député dem ci assemblée ba nationale ba di nga ko fa mën a euh, yuuxul waa Touba. mais mais merci bien Bakar bi ñuy njëkk bi ñuy njëkk a def mooy parce que kenn umplewul ni Touba dëkku diine la li ñuy njëkk a def mooy protéger nos chefs religieux. Mm-hmm. gis nañ ni bu yàgguloo Ndiaye. am na ku nekk présidence de la république génn ay kàddu yi safaanoo jëmale ko ci kilifa diine yi sans être inquiété te amul dara lu ko lu ko ci mën a fekk loolu jàpp naa ni suñ proposition de loi bu njëkk lay doon incha allahu rabbi bu ñu sénégalais joxe confiance ban dem assemblée li ñuy njëkk a def mooy au même titre au même titre que ñu euh, que ñu protéger le président de la république via l' article 80 dinañ fexe ba chef religieux aussi mm-hmm. ñu def proposition de loi boo xam ni dañ leen siy protéger mm-hmm. ndax dafa am solo loolu mm-hmm. euh, gis nañ bi mu waxee ay kilifa diine yu bëri wax am na doomu sëñ fallu boo xam ne ñu ngi koy ziare bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér génn na wax ci wax joo xam ni deretu xale yi mën nañoo tàng ba mu indi jëya parce que effectivement li mu wax day dëgg gu wér ci pas-pasu jàmbur kenn du ko fooye ñu bàyyi nit rek mu nekk pale rek nekk si ñoom lu ko neex mu wax wax si suñuy bind ñu ñu yaakaar wax si suñu jumaa ji wax joo xam ni demeewul noonu wax ju ñaaw la. Euh, loolu il faut ñu protéger ko. mais est-ce que nekkul tamit wax jooju noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ko jege dañ ko bëgg euh, jël politiser ko jël ko bëgg euh, nekk mu nekk arme boo xamante ni moom la ñuy xeexee ci campagne yi nga xam te moom lañ jëm. bon en réalité du arme parce que bu nekk bu demee woon noonu da ngay gis benn frange de la population ñoo ci nekk di wax mais Sénégal gépp a jógoon. Hmm. kilifa diine yëpp a jóg. ba man. vraiment bett na ma li tax ba léegi mu nekk fa ndax kii bu mu amoon. loolu du affaire politique Sénégal gépp nga gisoon ñu wax ci. kilifa yoo xam mosoo leen dégg ci politique. ñoo génn wax ci. donc nekkuloon affaire politique. affaire boo xam ne dafa laal sensibilité ak gëm-gëmu doomu aadama yi. muy lu sensible loo xam ne mën naa jur jëye ju nekk ci Sénégal. il faut que loolu ñu arrêté ko nu ñu koy arrêté mooy protéger leen via des des des lois claires. ba au même titre que ni ñu protéger président de la république. ñu mhm. protéger suñu chef religieux yi ba kenn du fooyee seen. kon daal jàpp nga ni yow loolu mooy doléance bi njëkk boo xamante ni nii bu la yàlla defoon député bëgg nga proposer ko foofu noonu. ci mooy mooy doléance bi njëkk des na yeneen. Mhm. parce que aussi ñëpp xam na ni. Mhm. Touba est resté toujours à l'état de commune. loolu incha allahu rabbi bis bu ñu yàlla yóbboo assemblée fas na nañ yéene euh, wëlbati done boobu. ba def ko une ville spéciale. mu mhm. ngi naan spéciale mais c'est si yi rek la. Mhm. maanaam kayit yu tënk. Mhm. ni Touba ville spéciale la ba bu ñuy ti budget. ba bu ñuy joxee ti cër. Touba ñu bañ koo jox cëru commune comme commune yi ci Sénégal yëpp. mais ñu jox ko cëru ville spéciale. mën naa wax comme ni Vatican mel ci Italie. comme ni Monaco mel ci France. c'est des ville yoo xam ni c'est des villes spéciales protégées am seen statut yu leer yoo xam ni état day xam ni ñii fii lañ nekk li ñu war a jot ñu di ko jot correctement. Mhm. Touba mënta nekk dans le département le plus peuplé du Sénégal. Mhm. parce que effectivement bu ñu wax Mbacké mooy département bi gën a peuplé Sénégal Touba tax. Touba tax euh, mhm. Touba mënta am. Euh, kilifa diine yu mel ni fi nekk. donte kilifa diine yëpp am ci Sénégal. mais ñëpp xam na ni kilifa diine ak dëkku lislaam ak dëkku diine mooy mooy mooy Touba Touba mënta. indi ci économie li muy indi nga xam ni ñëpp xam na ni wax dëgg fa yàlla màggalu Tuubaa li muy dugal ci gafaga réew mi. Mhm. amul événement bu koy dugal ci ci gafaga réew mi. Mhm. donc yooyu yëpp nga dajale ko. ba pare bëgg koo def commune tënk ko ci li nga tënke commune yëpp. Mhm. jàpp naa ni loolu rek lay la boo xam ne bis bu ñu taxawee euh, défendre ko. def ci liñ ci war a def. indi yeneen élément yu gën a xóot boole ko ak lépp. teg ko ci kanamu assemblée jàpp naa ni. dinañ ko voté ba Touba mën a nekk ville spéciale comme ni ñu defee biñ demee ba xam ne màggal Touba dafa war a nekk jour férié. niñ ko niñ ko niñ ko lijjantee xeex ko lijja def ci suñu yitte noonu la ñu bëgg a def incha allah ba suñu deuxième proposition de mooy def de Touba une ville spéciale.